ko yakal diggante ak nit ñoo ko yakal diggante ak jamaay te ñu ci nga ne lan ah oui. Nabi Vision yak yàq Ousmane ak nit ñi ñoy yak diggante sayidina Ousmane ak le président Bassirou jomay fay mais et après ñun xam nañ né ñaari gor sa yu ñu andé dana am ay say say. ñu bon ñoo xamné ne bëgguñoo gis ñaar ñu and. surtout ande ga nek deug daf leen déranger parce que seen xol moo yàqu bëgguñoo gis lu baax bëgguñoo gis ñu bëggante àndante jàppante te yàlla tax am na ñoo bëgguñ loolu bëgguñu gis ñu déggoo bañ sañoon ñëpp dañuy nekk ci safaan di dóorante di rayante eh, di tibbante tànk mais ñaar ñii incha allahu taala dañ ci mucc da ngeen comprendre lu xew Bassirou mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko loolu yemul ci ay wax. la ca biir su ngeen ko xamoon da ngeen noppi beneen bi ci des mooy en tant que kilifa diina ndaxu si confirmé na ko nee na kilifa diina kil yow sëriñ nga bi nga gisee si penc mi ñu bon ñooñu di def jëf ju bon jooju looy xaar waar leen delloo leen ci yàlla waar leen leen ci yàlla Naby waaye man li ma gëm mooy xam naa ne wax ji du dëgg donte sax mantu ñàkk gisoo koo xamante ne muy dox di yàq diggante Diomaye ak Sonko ndax man li ma gëm mooy gisuma ko am fiitu dem ci Ousmane Sonko naan ko jomaay nangam ak nangam di yàq waaye itam noonu laa ko ñàkka a gëmee ku am fiitu dem ci Bassirou di ko jaxasee Seydina Ousmane Sonko waaw man li ma gëm mooy wax ji nga wax suñ la toppoon na la sëriñ bi kaay ñooñ kat baaxuñ si réew mi dimbali ñi lillahi wa rasuli ay milliards a ngi nii doo gis nit waaw doo gis nit loolu dëgg waaw man gëmuma ne loolu li nga wax nii dëgg la waaw bu dee dëgg la parce que ñooñu baaxuñ ay ni ay ñaar ñu yàlla boole ñi ànd te yàlla rek tax waaye waaye képp kuy gor boo ca jàpput waroo dox ci lu koy yàq surtout nit dina ko dégg jëf jooju looy xaar si ñooñu loolu waroo ko waroon nga ne waroon nga da dangaa waroon a rus sax di ko nettali fii ñu lay dégg publiquement donc waroon a rus waaw. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko déggandoo. Nabi Vision nee na am nañu taxaw temm pour tas diggante Sonko ak président Bassirou ay Faye mu ne am na sax ñoo xam ne jaral na leen ñu dem ci sëriñ pour yàq diggante bi mais man personnellement li tax awma ci tiit mooy ñaari gor dañoo fasante kóllëre te gën naa ni kenn ci ñoom ñaar du mu njëkk a fecc kóllëre googu noonu ñoom ñaar weesu nañ ay xarit ay doomu ndey lañu loolu la yàlla dogal te xam naa ni mystique mun leen a tàqale nañ ci bàyyi xel. wallaay des fois damay bëgg a wax li li kii di wax li làmmiñu daar di wax ma le monde va rànki xaw ma <laughs> ngir yàlla s'il vous plaît xaaral ma àbb s'il vous plaît wu ma kii bi s'il vous sama doomu ndey borom réew mi s'il vous plaît monde va rànki Euh, oo oh, toogoo oh, oo toogoo saa ba du mat yi façon nit kan moo leen créé quoi est-ce que ñii dëggantaan njaay yàlla moo leen sàq. Naby Vision. wallaahi tey j'ai envie de rire quoi xanaa xam man gëj naa seetaan ay saaneex ak ay ñànku ak lu may bëgg ñànku yëp man am na ñoo xam ne si game bi fi mu toll nii Sénégal ah ñooñu ñoo ma remplacé ñooñu parce que man dama dama leen di seetaan damay damay. maanaam damay damay damay reetaan damay am gàcce mais damay damay reetaan maanaam ñoom dañuy wax dañuy jàpp ni ñu ngi wax lu sérieux mais man mu doon comédie ci man man xaw ma man maa wayut xaw ma ñoom ñoo wayut xaw man maa manqué xaw ma ñoom ñoo manqué loolu laa bëgg ngeen dimbali ma ci man commentaire parce que man vraiment Sénégal war na mérité wul lii quoi ay nit yu woowee seen bopp kilifa te man li ma gën a metti nag ci kii lu mu tudd trop li ma gën a metti ci moom li muy bàkkoo man sëtu Serigne Touba li ma gën a metti ci moom li muy bàkkoo ni dëkk te mënuma ma koo mënu ma koo bañ loolu moo ma gën a metti xool leen xeetu wax suufe yi ay Sonko am na ñuy jóg moom jomaay di leen liggéey pour tàqale leen mais lii ban wax la maanaam lii lan la ban ban sens lu xew lan ku la laaj ku la laaj ku la laaj. non tu dois te poser des questions li may wax. de un ban impact ban sens la amal réew de deux li may wax ku ma ko laaj li may wax ñi ma koy waxal est-ce que ñoom amal nag maanaam euh, laaj nañ ma ko buñ ma ko laajee ba pare est-ce que man sama cër may na ma may toog di wax yenn yi ci télé di wax waxuy suufe waxi ñàkk fayda en tant que jullit en tant que gëm yàlla nga tok nan ni Sonko djomay am ngi leni liggey liggéey mu ngi mel ngeen geejgi amna ndox lan la jeundi ragal geej xam nga yeen non moo nit ni mu ni mu tollu rek lay defé dal parce que ñoom jàpp nañu gàllaaj yalla manam gàllaaj nit meunal na nit dara parce que ñom loolu lañ gëm mais Ousmane Sonko ak Diomaye yéen bu ngeen jangul mbiru yalla ci ay mbirum ba toog di jéem a buruxlu naan ay dañu leen di am na ñu leen di liggéey bay naan ay ñooñu dañoo bëgg a yàq réew mi ak ay. nit ñi bu leen liggéey doon doon jàpp wala boog ñii bu leen nit mënaloon dara ñii li li ñu am tey dinañ ko am mais ñi jàngatuñu. kéemaanuk sunu borom ci Ousmane Sonko ak Diomaye fay yéen ba tey jàngoot gàngoo leen kéemaanu sunu borom. tok bëgg duggal ci bop sénégalais yi nan am na ñuy liggéey jom ak Sonko même lolu yow bu fekkone xam nga ko bu mu doon dëgg sax wax boobu mo amul sens ci ñaar ñi ndax ñi yalla dafa woné kéman ci ñom wan ko aduna bi yépp wan ko képp ko xamante am nga tuti iman ci yow nga taxaw ak li nekk ci ay sujet nga ni politicien nga chef de parti nga li nekk ci ay sujet am ay enjeu sujet yu am importance ngeen war ko révéler sénégalais yi teg ay pa di avancer di war doxal nga tok di ñu wax waxi pitch sa jabar ji nga nekkal la amna ñoo xam ñu ngi xey suba ba ngoon pour takalé len manam waxi dof waxi pitch sénégal la la wax ñaar ñu bax ñaar ñu ñaar ñuy and lañuy bañ mais dafa am lo sunu borom ngay gëm boko gëmé rek wax do ko wax sax nit ñi diko dégg parce que wax yi mo amul sens surtout man ngay wowe sa bop kilifa ngir yalla ak yonenté bi quoi please please gaynde may ñu cham ngir yalla waxal manam nay ndam nak assalamu alaykum ma ngi nuyu ku nek ci sante di balax ñepp di baalu ak di ñaan yàlla yàlla dafa pardon nu jàmm si biir ak si biti parce soxla nañu ko mën ñëwaat rek di sama gis-gis bu gàtte rek ce qui se passe actuellement dans notre cher pays actualité bi Naby Vision Euh, pour voir le nous dalal sur nos chers parce que nous nous dites mais le président Bassir OS notre ministre le halat nous quoi nous qui mettre en application amener un plan d'action c'est une stratégie amener que nous qui mettre en action mais il faut que nous nous sentir que le peuple est derrière eux pour nous encourager courage pour y projet parce que parce que le travail vient de commencer parce que le système bi depuis les années 60, bonjour, bëgg un bon jour nga que et puis c'est vis-à-vis parce que nous, on la souveraineté donc c'est vis-à-vis nous dul nous seytaan ngay def fait la faire pour nous contrecarrer ces stratégies nous jéem ni ngay. nous parce que nous actuellement le conflit astafurlah lu conflit mais actuellement Mali et Mauritanie dematuñu non. parce que les nous nous ni au niveau de leur frontière là n'est pas anodin am na nu mu demee nga jël Bénin ak Niger hmm? parce que seen pétrole bu nu am foofu lay transiter dafa am ay ay pipeline boo xam day dem ba foofu comme ça léegi si nuy pétrole bi ñuy jaay bot yi ñëw jël ko yóbbu ko export ko yóbbu ko à l'intérieur te foofu pôle Bénin rek la nekk te on a signé des des des contrats par rapport à ça mais Bénin bañ ñu est que derrière sont également les Français parce que arrangez parce que France pour ce demee est que puissance mondiale te as un bien ressource à un pétrole un diamant un or pratiquement tu n'as rien comme ressource naturel et tu deviens et tu deviens puissance mondiale c'est parce que c'est colons ces colonies noonu force donc du du yomb du yomb non, donc fay metti donc travail la bo xamné liguey la bo xamné ne la bo xamné ça demande de l'endurance il faut que nous nous sentir c'est-à-dire que euh, nous nous jiit sentir que population est derrière eux nous mettons, mettre nous mettre cette stratégie en confiance pour pour nous a projet de faire dafay

les médias français donc, jouent un rôle inhérent par rapport à la manipulation. Comprendre Parce que manipulation, est un petit pays africain, ils ont un rôle. Maintenant, RTS, Nabi Vision. caresser les médias-là. N'est-ce pas Parce que nous, les papes, allez, nous, ça parce que maintenant, nous concurrence par rapport aux médias français. Au les autres Africains, nous avons des informations juste et vraies. donc dina comptes yeneen donc lu colon indi des di def day sama gars car affaire en douceur kenn du yëg on va réussir dina metti endurance la course fond donc nañ ko le faire et puis di ñaan yàlla tamit l'opposition bu ñu wax l'opposition bi mu mu mu feeñ a am balance bo xam ne dina développer ça à dire que amender la la la démocratie gën ko yob parce que dëkk bu amul opposition musiba la amul sens actuellement ñun may opposé ce sont les chroniqueurs ce sont les journalistes ñu nekk di opposer par rapport à ces régimes là Naby Vision. dem.

dina am président ay nit yoo xam ne dañu dañu jig dañu jig réew mi parce que affaire yi dina dem ba nekk tâche d'huile j'en suis sûr que incha allah rabbi dina am ne boo xam ne kenn du ko mesurer moo tax il faut conséquences yooyu yëpp na ko commencé di prévoir di anticiper pour inondation yi bañ a demee noonu quoi yàlla baax na ñu góorgóorlu ñu jàppale ñu ñaanalante. On soit solidaire équipe nous avons ma tout le peuple sénégalais derrière euh, ce gouvernement là nous avons en anglais team teamwork team building donc équipe mooy liggéey et il faut construire une, équipe pour nous travailler actuellement ils sont en train de construire une équipe équipe qui xam ne parce que vous en train Inch'Allah, nous sommes donc soyons patients soyons vigilants Naby Vision